tu trahir, Youssou peux créer Radio beaucoup. À ces gens-là, tu as envie de répondre ou quoi Non, duma man xam nga duma répondre. Te dama lay wax. Youssou Ndour ne peux ci Ibra ne fa pas répondre. créer orchestre pas répondre. ne peux pas répondre. Hein? Hmm. ne du dem. yëpp ne du dem tey mooy numéro un tey mu dem mu def fi lu mu fi def kon kooku fierté la Youssou Ndour bokkul ak lenn ci réew mi. naa ko am xel dégg na li nga wax. waaw jam ci yëgg na. mais Ibra Kassé Youssou Ndour Boubacar koo gis mu yor euh, butiku mbagg magasin nekk ci xol. Youssou Ndour man dama ko servir. man woowu ma Youssou de pour ne ko dama bëgg ñëw ci loolu ngay créé Youssou Ndour daf ma woo ne ma dama laa soxla ne ma lii ak lii ak lii ak lii dama bëgg nga ñëw jàppale ma ko waaw dinaa ñëw jàppale la ba fii l'homme nakk que sa parole mm-hmm. nit amul lu dul kàddoom mu ko dina ñëw jàppale la moo ko waxee def naa ko jàppale naa ko ba fi ma yem fi ma yem ma teg sama projet sama projet bopp xam ni dama war a def tamit man tamit Youssou Ndour dafa liggéey ba am lu mu yoree njabootam jël ay rakkam jël ay mbokkam jël ay compétence yuy liggéey man dama am pour créer des emplois dama am pour ci sama tour ci sama motivation ma créer emploi bo xamni pap Pape Sidi Fall da ci am salaire mhm. ma créer emploi bo xamni ni keneen ak keneen ak keneen da ci am salaire. j'en suis la preuve ñooñu ñëpp mën ci am du ñu yóbbu seen kër. su ma toogee foofu dinaa liggéey nekk ci sama confort dinaa fayeeku dinaa am lépp loolu waaye man waruma seet pour sama bopp rekk dama war a seet pour réew mi dama war a sos loo xam ne réew mi da ciy jëriñu ni Youssou Ndour sosee loo xam ne réew mi ciy jëriñu man noonu laa war a sosee loo xam ne réew mi ak ndaw mi dañ ciy jëriñu ma servir le Sénégal, servir les Sénégalais, servir le peuple, sans rien attendre en retour. Je suis